salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi nga fàttali ñu. Mamadou Thiam. dañoo gis ne dañoo fee defoon couvre-feu ba pare gis nañu kaa yi yokk na ah, ñëpp di xalaataat ba xam ñu defaa couvre-feu ñu lay laaj loolu lan mooy ca xalaat. waaw couvre-feu bi moom amul sens moom amul njariñ bon gisuma gisuma lu mën a faj ci feebar bi loolu xanaa au contraire da koy yàq mais du faj nañu bàyyi nit ñi. ñu liggéey état nag li mu war a def mooy jàppale nit ñi ci masque ah bu boobaa mën naa tëral luwaam bu ko defee ku koo xam ne ni takkoo sa masque mu arrêté la fay lool mais ñoom bu ñu jàpp ne masque yomb na leen rek yomb na ñu ci des noonoo non bu ñu ko jàppee noonu nañu nañu xàmmee néew doole ak ko am doole waaw loolu c'est très important. Ah, ba pare ñi ngi dégg ne saa su ne ñu naan vaccin yi génn na. te boo mooy ba léegi vaccin yi gis nañ ni mënul def dara léegi ñu ne laa loolu la mooy. no vaccin yi moom man yàlla tere ah bu ma feebar bi daloon bu ma mënee dara sama bopp kenn du ma vacciné parce que man vaccin yi wóoluwuma ko man. ah nga feebar ñu ne la vaccin yi dina baax nga ni bu la ko kiiwee doo. non doyuma. ndax doyu la. politique gu tubaab yi ah mën nañ lu ne moo tax doyuma. te suñu état yi dañu faible ba tubaab yi noot leen man nag loolu doyuma quoi man. waaye fii couvre-feu mënu fee am sa ñun ñu ngi bëgg a dee dëkk bi dafa metti yi naan ay couvre-feu bëgg demoo Ndiaye lañ jógee ci ñu sonn a dee Macky Sall bu neex ak ay ministre bu dee bëgg suñu kër la sa yaa ngi yor sa bu neex di fay ko ay xaalis bu bëri toog sa kër kilim di lëpp ñun lu ñu lekk sax amuñu ko ñaan ay couvre-feu fa la ñuy defee couvre-feu couvre-feu bu amee day metti dëkk bi day metti bu fi amee ñun duñ ko seetaan day metti day metti parce que ñun dañoo sonn fa la ñuy defee couvre-feu waaw yow couvre-feu mënul am Sénégal fii waaye man vaccin yooyu ñuy wax noonu man ku ma vac kenn du ma vacciné man kenn du la vacciné ku ñëw du ma dóor pigir non dama ko dóoraat man kenn du ma dóor pigir man nan damay pigir su may dee naa dee noonu sax mais kenn du ma vacciné damaa xam la man du ma ko def ñoom nañ ko essayé ñoom tubaab ko defal ñun dañ ko essayé ñun dañoo yeb ñun nañu sonn lekk ñun naanuñu ñu ngi nii sonn bay bëgg a dee ñaan ay couvre-feu ay vaccin ay man vacciné wu te ku ma ku ñëw ma ko dóor war nañaa dinañ jàppante man vacciné wu ma waaw bu mag lay doon ci askan yi parce que maanaam li nga xamante bi maanaam moom la fi bàyyi woon dafa parce que bu njëkk bi ñu ko defee réew mi yëpp maanaam moo àndandoo maanaam sooxee bu méttee métti ba nga xam ne maanaam moom kenn ku ne feeñ na ci yow bépp commerçant bu mu mën doon rek loolu feeñ na ci yow feeñ boo xamante bi maanaam yëngu ko sa bopp kon maanaam pour ñu defaat comme fo loolu du arrangement Sénégal li nga xamante maanaam moo nekk mooy nañ jéem a dëkk ak feebar bi gérer ko jël suñu matuwaay pour maanaam nekk ak moom ci côté bu ne ndaxte loolu maanaam mooy suñu yoon mais nekk maanaam defaat beneen couvre-feu moom la vaccin moom maanaam man fekk na ma Touba sax man fi ma nekk sama dëkk mais maanaam ba ñëwee dama leen a génn sama kër man moom d' accord uma ko tey d' accord uma ko suba vaccin moom du ko mos a d' man parce que tubaab bi moom du ma ko mos a confiancé ba ba dinay tukki. waaw ah, daa am ñëw sa kër ne dañ lay vaccin. waaw am nañ ñëwoon sama kër Touba fekk nañ ma fa bi ñëwee nuyoo ak man jàmmante mais dama leen génn leen doy na sëkk samay xale du ma leen vacciné loolu moom maanaam man lañ ko def. la feebar bi am na ñuy naan feebar bi am na ñuy naan feebar bi amul sama waaw mais ñun moom ñun néew di doole yi ñoom sonn nañ torop wax dëgg fa yàlla ndax ñun dañuy nekk suñu garage fii liggéey sama yóbbu kër ga mais suñu defee couvre-feu dina metti torop si ñun te ba tey Macky Sall président Macky Sall waxul dara si ouvrier yi mu ngi ñuy seetaan gis nañu waykat yi sax ñu ñoom ñu ngi def ay masse ak yooyu noonu mais ñun ba tey déggagul ouvrier yi ñu ngi def ay masse déggoon nañ tamit am na ay waykat yoo xam ne joxoon nañ leen xaalis ñun tamit ñun ouvrier yi tamit war nañ ñu fàttaliku ñun tamit si réew mi nañ bokk waaw vaccin bi waaw dégg naa comme nu nga ko déggee noonu noonu laa ko déggee rek mais ñun tamit dara ñu si ndax ñun instant yi ñun xam ñun ñun ay innocent nañuy doon war nañu nag di dimbali ñun innocent yi di ñu di bàyyi xel ñun tamit waaw ndax ñun ay néew di doole nañu waaw. ah mais loolu président moom na ko ci ko d'accord ba pare président mooy président na ko ko defar ba pare ab ñu xool ñun tamit ndax mooy moo yor réew mi. ñu essayé ko ci moom. waaw ñu essayé ko ci moom ba pare ñu xool.